juróom benn xaaja ba ci njëkk mooy gëm yàlla kon gëm yàlla lañ lañ jàng ba pare jeex na te gëm yàlla mooy vingt attribut yooyu nga gëm ne yi dafa war ci yàlla yeneen vingt attribut contraire yi nga gëm ne c'est inconcevable c'est impossible mënta nekk ci yàlla nga gëm ne yàlla lépp mu def rek lépp lu am rek dafa dagan ci moom lu ko neex loolu lañ jot a jàng ci parti bi concerné al imaanu billah léegi kon ñu war a dem tey ci gëm malaaka yi kon yàlla mooy élément bi njëkk malaaka yi mooy deuxième bi livre yi mooy troisième yonent yi ñooy quatrième dogal mooy cinquième des na benn bis penc mooy sixième donc kon tey dañuy dugg ci deuxième ak troisième la ñuy jël tey moo tax mu ne aslun في في الملائكة أوكي فصل في الملائكة عليهم الصلاة والسلام فصل buñ ko waxee mooy chapitre mu ne kon faslun fil malaikati alayhimu salaatu wasalaam chapitre bii moo jëm ci malaaka yi malaaka yi alayhim salaatu wasalaam mooy yàlla na leen yàlla defal jàmm ak xéewal malaaka yi kon yaa ngi dugg ci chapitre bi nga xam ne dafay jàngale la foi aux anges day jàngale nooy gëmee malaaka yi donc kon da ngeen di da ngeen di noté da ngeen di noté éléments yi may wax yi mënta ñàkk soit seen téléphone wala seeni kay kayeg bi waaye daal partie bi li muy jàngale kon mooy loolu la foi aux anges gëm malaayika yi li ngeen di kiyet mooy li ci am solo mooy nga xam ko rek bu la neexee bind wolof noo ko bind séeréer bu la neexee noo ko manee rek waaye xam ngee ci am solo ne moo tax mu ne mal mala ikatu fal imaanu bihim huwa tasdiqu wal ixaan amal malaikatu amal malaikatu saati fii da ngay gis ne day day mel ne dafay def benn transition jógee ci lii di wax le amma amma nangam mooy kanta nangam nangam kanta les les les les les nu leen waxee les anges bu fekkee malaayka yi nag bu fekkee malaayka yi amal malaayka su dee malaayka yi nag wal imaanu bihim gëm leen huwa moom maanaam gëm leen mooy ak tasdiqu wal ixaanu kon bu ñu laa lan gëm naan mooy ñaar yi ak tasdiqu wal ixaanu ak tasdiqu mooy lan mooy dëggal ci sa mooy nga dëggal ci sa xol mooy da ngay da wala da ngay convaincu ci sa xol wal iqaanu te nga wóolu ak wóolu kon gëm malaaka yi suñ ko waxee rek mooy loo xam ne danga koy dëggal ci saxol xol danga koy wóolu ci saxol xol lan ngay dëggal ak lan ngay wóolu ci sa moom la wax ci bayit bi ci topp kon gëm malaaka yi mooy ñaar nga dëggal te wóolu ne bi annahum la shakka mawjuduuna annahum naka ñoom ñoom malaaka yi la shakka amul sikk sàkk mukk amul werante ci ne mawjuduuna ñu existé lañ loolu ngay dëgg xol da ngay gëm ba pare wóolu ñaari ngay boole da gëm ak wóolu ci sa xol gëm ak wóolu ne malaaka yi laa shakka mawjuduuna kenn werantewut ne dañoo existé ñoo am lañ kon malaaka da ngay gëm ne dafa existé ba pare kon ngaa war a gëm ne malaaka lu am la soo gëmee loolu ba nag summa mina zunubi maasumuuna summa min azunubi maasumuuna summa mooy puis nga gëm ne maasumuuna baat bi mujj ngay wax maasumuuna ñu ñu musal lañ kon summa maasumuuna ñu ñu musal lañ min azunubi ci ay bàkkaar am nga foofu ci loo war a gëm ci man danga war gëm wóor ne malaaka ba ci njëkk mooy ñoo am lañ existé nañ ba ca topp mooy dañ leen a musal ci bàkkaar malaaka mënta def bàkkaar ñoom naturellement yàllaa leen bindee noonu jaamu yàlla kese lañ man malaaka mënta mooy yàlla maanaam menn xel la loolu sëñ Tuubaa doon wax ci naan naan Ibra Faal menn xel la maanaam Seex Seex Ibra mënta xalaat leneen lu dul sëñ Tuubaa mënta nekk ci leneen lu dul ci malaaka nag loolu la malaaka yàlla daf leen bind ci dañ leen da leen koo mooñaale mënuñoo mooy yàlla moo tax mu ne la summa mina zunubi wala summa maasumuuna ñu ñu musal lañ mina zunubi ci bàkkaar kon ñaari élément ngoog yoo war gëm da ngay dañoo exister dangay gëm ne duñu def bàkkaar bi ci topp mooy wa annahum la yatarawatuuna wala yabuuluuna mutaxaruuna wa annahum ñoom ñoom malaaka yi laa yatarawatuuna duñ dem war malaaka déchet du ko génne maanaam du matière matière fécale du dem wanak wala yabuuluuna duñ tuur ndox malaaka mënta dem du dem wanak du tuur ndox mutaxaruuna ñu ñu laabal lañ kon yeneen ñaari élément gi noonu mooy nga gëm ne laa yatarawatuuna wala yabuluna duñu dem wanag duñu tuur ndox matière fécale duñ ko génne urine tamit duñ ko génne ñoom malaaka yi yooyu tamit yàlla leen ko jegleel nga gëm nit laysat malaikul ilahi yakuluuna alayhim assalaamu laysu yashrabuun laysat laysat négation la maanaam day dàq day wane ne ñoom malaaka yi déet ñuy yakuluuna lekk laysat malaaikul ilaahi déet malaaka yàlla yi di lekk yakuluuna ñuy lekk alayhimu salaam yàlla yàlla defal yàlla na yàlla defal jàmm laysu yashrabun duñu naan kon yeneen ñaari élément ngi noonu mooy malaaka du du lekk du naan malaaka du lekk du naan mu ne am li am mooy hum ibaadun mu mukarramuuna sarmadan ay jaam lañ yu yàlla teral ba faw hum ibaadun ay jaam lañ mukarramuuna ñu ñu teral sarmadan ba faw ay jaam la yoo xam ne yàlla leen teral à jamais ba faw te it wal kullu minhum laysa yansi samada te kenn ku ci ñoom du moy kilifa du mooy kilifa ga maanaam du du du ndigal malaaka du tegg ndigalul sunu borom da ngay gis ne foofu it li nga ci xam mooy rek mooy malaaka lu teggi ndigalul yàlla donc ay jaam lañ yoo xam ne yàlla moo leen teral te kenn du du du du teggi ndigal lu ko sun borom lu ko sun borom digal loolu nga jaam mooy kon kenn du teggi ndigal ci ñoom wal kullu yafalu alladi qad umira bihi wa liyaxaadu bi amnin bushara comme nee na la kenn du ci tegg ndigal da nga koy déggee ne kon wal kullu yafaalu lazi xat umira ne day def liñ ko digal waa kay kenn ku ne ci ñoom li la yàlla digal rek wal kullu kenn ku nekk ci ñoom yafaalu lazi day def li nga xam ne xat umira digal nañ ko kenn ku ne rek luñ ko digal ca loola lay nekk am malaaka yoo xam yàlla da leen a digal ñuy taxaw ci taxaw gi rek la ñuy jaamoo yàlla ba faw am ñoo xam dañuy sëgg am ñoo xam dañuy sujjoot am ñoo xam ne nee na nag neen kenn ku ci nekk loolu la digal loolu la yàlla jox doo ci jug ba mu loolu rek ngay xam daal ne nag moo tax ma ne wal kullu yafaalu alladi xat umira bii kenn ku ne lañ ko digal rek ca lay nekk mu yokku ci nag lii ne wali bi am nin bushara lii moom waxi boppam la moom sëñ bi mooy yeñ la doon wax ci njàlbeen ga di la xamal ne la bokk na ci màndarga yi tax ñu mën a wax ne téere bi ginnaaw exil bi la ko sëñ bi bind mooy xeeti wax yi ndax fii dane wali bi am nin bu shara wali qaadu matal nañ ma indil nañ ma ñoom mala nin ci kóolute sécurité bu shara mbégte malaaka indil nañ ma xibaaru mbégte malaaka yi ni ngi may indil joie saa su ne loolu ay waxam yoo xam ne diggam ak boroom la ñu ñëwaat ci lim doon wax ci malaaka yi wa annahum qalaqahum min nuri rabbihim wa annahum ñoom malaaka yi min nuri rabbihim dañ leen a bind ci leeru seen borom dañ leen a à partir euh, de de la lumière waaw kay ci maanaam leeru yàlla yàlla ci leeru mala ci leer la bind malaaka loolu moo tax ba sunu borom digalee malaaka yi sujjootal leen aadama iblis bañ ko tani min na min min min min naarin wa xalaxtahu min tin dang ma bind ci sawara mom nga ko ci ban argile kon man ma ko gën duma ko sujjootal nangam nangam kon malaaka yi ci matière bi leen yàlla bindee mooy lumière la leen bindee comme ni nga xamee ne noonu la bindee doomu aadama ci ban kon malaaka moom partir de lumière ci la ko yàlla ci li leerug yàlla ci la yàlla bindee malaaka moo tax mu ne wa annahum xalaqahum min nuuri rabbihim ñoom de dañ leen bind ci leerug yàlla kon ci leerug yàlla ci leen yàlla bind yàlla mi nga xam ne mooy albaar moo fiy des ba léegi newoon na la du du lekk du naan waaye nag am na lu ñuy def loo xam ne mooy mooy remplacer lekk ak naan huwa sharaabu taqdisuhu taamu la tartaabu tasbiixu rabbihim sàbbaal seen borom sàbbaal la nga ne subhanallah di def loolu nag dëkk ci saa su ne loolu mooy tasbiixu rabbihim kon di sàbbaal di tudd sen borom saa su ne huwa moom asharaabu mooy seenu naan malaaka dana la du lekk di sàbbal ñoom sàbbal sen borom boobu mo koy def ci ñom mo len di mo len mo sharabu sàbbal yalla célébrer la gloire euh, d'Allah lolu moy sen sen sen sen sen sen seen breuvage moo leen di mo len di dundal ci walu ndox lolu moy seenu naan kon di sàbbal yàlla saa su ne ndox mi ñi naan taqdiisuhu taamu buñ koy sàbbaal sàbbaal gi liñ ko gën a sellal sellal gi koy sellal loolu mooy sinu lekk ak taam taam mooy lekk kon malaaka kon mën nga ne dina lekk dina naan waaye nag lekkam mooy sell tudd yàlla naanam mooy tudd gi muy tudd yàlla mu daa ne na kon laa tartaa bu bu leen ci sikk sàkk lii ma wax bu leen ci am benn sikk sàkk bu leen am sikk sàkk ci ne malaayika bu dee yàlla loolu mooy ak naanam bu dee sellal yàlla gi loolu mooy ak lekkam kon yaakaar naa loolu mooy lu ajuwoon ci malaayka yi ci dunduk malaayka yi ci nga xam ne moom ci war a jàpp ci tënk rek li ngay jàpp ci malaayka yi mooy ci njëkk mooy nga xam ne waaw da gëm ci sa xol ne ñu am lañ mooy benn ñu existé lañ deuxième bi nga gëm ne duñ def bàkkaar troisième bi nga gëm ne duñu duñ dem wanag mhm, duñ tuur ndox ngoog duñu lekk duñu naan kenn du ci mooy ndigalul sunu borom kon ko ne li digal loolu lay def yàlla ya, daf leen a bind à partir de ak leeram sàbbal yàlla mooy seenu naan sellal giñ koy sellal nag mooy seenug lekk loolu rek ngay gëm ci lu jëm ci malaaka yi mu des ci deuxième chapitre bi mooy téere yi yàlla wàcce téere yi ndax yàlla day yónnee ay yonent bu yónnee yonent yi def leen di jox ay livre ay téere yonent bi mu njëkk a yónnee mooy hmm? Adama yonent yàlla Adama Adama la yàlla bind def ko muy ab yonent daal di bind à partir de ci Adama mu bind ci Awa daal di leen di boole ñu sëy ñoom ñaar am ak njaboot njaboot googa Adama ñooñu la nekkoon seen yonent kon adama moy yenente bi jek ci kaw suuf yenente bi muju moy sayyidna muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. sallam ñooñu yonent yooyu yépp nag da ca bari amna ca yenente yo xamne ne sunu borom dafa wacce ci ñoom ay téré téré yoy message bi yox sen ngir ñu jubal leen comme ni nga xamé ne alquran dafa nekk message boo xam ne téere la boo xam ne yàlla daf ko wàccee ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la amee ci yonent yëpp loolu lay bil kutubi tasdiq bi annaha haqiqun imaanukum bil seenu gëm téere yi gëm téere yi loolu boo ko bëggee mooy lam la waxoon ca malaaka rek mooy da ngay da ngay dëggal tasdiq voilà ak tasdiq dëggal na xol a koy def kon dangay fas ci sa nga dëggal ne nga dëggal ne téere yooyu bi annaha insaaluha insaaluha ak wàccem révélation wàccee gi ko wàccee xaqiiqun lu weer la lu authentique la dëgg la kon da ngay li ci njëkk ci téere yooyu mooy gëmal ci sa ne yàlla moo leen moo leen moo leen wàcce moo leen wàcce kon wàccee gi ngay jël mooy mooy bi ci njëkk boo noppee ci wàccee gi wa annama fiha maan bila shakkin faman sadaqaha naalal ula wa annama fiha te la nekk ca biir maan te la nekk ca biir mbooleem téere téere yooyu la nekk ca biir mbooleem téere xaqun dëgg la bila shakkin ci lu amul sikk sàkka donc kon da ngay gëm ne bi li ci nekk lépp dëgg la wax yàlla waaye nag loolu mooy ca cosaan na ko yàlla indee woon bokkut ak bi ci loxo doomu aadama duggee bam soppi par exemple léegi da ngay dégg nouveau testament ak naagam naa ngi mel loolu ay ca cosaan ay téere la yu yàlla wàccee woon doomu aadama dugal ci ay yëfi boppam bam nga xam ne léegi daanaka doonatu ko lu ci dul alxuraan daanaka am na so ay sopp waaye nag cosaan la ngay gëm kon moo tax ne la wa anna maa fiha maan xaqun nga gëm ne lepp lu nekk ci biir téere yoyu ya, ya, deug la eh. bila chacun ci lu amul benn sikk sàkk faman sadaqaha ku ko dëggal ola di nga am ak kawe manam kep ku deugal lolu ma wax c'est élévation sa kawe dana dana dana yok sa su kon lolu moy ñaareel bi moy nga gëm ne contenu bi ya, nak ci téere bi lepp deug la léegi téere yoyu nak la wacce eh, mom la lay wax lim nim toll xamane adaduha sen nombre sen lim limu téere yooyu nombre ya lawa wàccee mi ngi nekk xadun ha xaaf ak del xaaf mooy cent del mooy quatre cent ak quatre moo la jox cent kon yàlla cent quatre téere la masa wàccee ci kaw ya lawa wàccee na cent quatre livres alxuraan ci cent quatre livres yooyu dugg leg bi indé 104 cent livres yi nak daf ko séddal daf len ko séddale yonent bu ñew yalla da fay am ay bata yu muy wacce ci yow motax tax mu ne adaduha senu lim xadun 104 la xadun kon ab nombre la haf ak del cent la legui bima ci wàccee yoy mo ne waya parce que ci euh lettre arabe lettre boo gis am na nombre alif mooy un ba mooy deux ci mooy trois del mooy quatre noonu lay demee ba egg mille donc vingt huit araf yi am ci alxuraan yëpp araf fu ci nekk dafa am nombre bu muy correspondre loolu moo tax boo jëlee xa cent la lay jox boo jëlee daa quatre la lay jox moo tax mu waxee ko nii ne adadu ha seen seen nombre xadun cent quatre la saakaat yooyu nag wayaa un diis yi unzilat wàccee na wàccee na ko min ha ca téere yooyu ala aadama ci yonent bu ñuy wax kon dafa jël diis yi jox ko aadama dafa jël di dafa wàccee cent quatre livres jël ca diis jox ko yonent bu ñuy wax aadama mhm. fii maa xat sabat ci loo xam ne lu sax yonent yàlla Adama am na diis téere kon normalement mu war a des ñaata quatre kon Adama bi ko yàlla yónnee ci njabootam dafa jël lu mat fukki téere jox ko waaye fukki téere yooyu nag du bokkut ak comme ni alxuraan toll nii maanaam fukki téere yooyu mën naa nekk sax ay page te du mel noonu mën naa nekk ay quelques pages ndax téere moom ça dépend man mën ngaa bind téere loo xam ne dix page lay nekk ñu tuddee ko téere kon da eh, ngay ne rek amna ci 10 téré téere yoo xam da ko wacce ci yonent yalla adama des na 94 94 yoy nak mu jël nun nun égal 50 nunun ala shisa, ci ku ñuy wax shi'sa ibnihi domam, yonent yalla adama amna dom ju tuddu shi'sa Siisa samu yalla wacce na ci mom nun ci ay téré 50 kon 94 vingt quatorze yi nga wàññiwaat ci 50 livres yo xam yalla mi ngi ko wacce ci yonent bu ñu wax sa ibnu Adama doomi Adama kon mu des ñaata 44 ay ci ñu eggal mu ne summa ala Idrisa amna yonent bo xam mo tuddu Idrisa lamun moy 30 kon am na 30 laam xaraf arab lettre laam égal 30 kon jëlaat na ci 44 yooyu 30 téere wàccee ko ci Idrissa ba tey yaa un alal xilli ca xaritam ba ya un wilaa jox na ko alal xilli ca xaritam ba kan mooy xaritub yàlla Ibrahim Ibrahima kon wàccee nañ ci moom yaa un égal dix kon jël na dix téere jox ko Seyduna Ibrahim kon day mel ne yi jeex donc cent cent yi kon boo xoolee kon cent quatre yi moo des léegi cent quatre yi jox na Adama dix daal di jox Siisa cinquante Idrissa 30 jox Ibrahima 10 léegi nak kat yi gëna siiw mo dess moy tawret injil zabur alquran war mu ne ha qad ihtawaha Musa, Tawret moy tora téere bi tuddu tawret qad ihtawaha jox nako yonent bu ñi wax Musa, kon yonent yalla musa mom la yalla jox tora moy tawret injiluha qad ihtawaha isa am na bu tudd injil mooy évangile yàlla wàccee na ko ci yonent bu ñuy wax isa moom la ñuy wax jésus sunu borom jox na ko téere bu ñuy wax injil waaye injil booba nag injil bi yàlla wàccee woon ci jésus ak injil bi am léegi ci chrétiens yi bokkut soppi nañ ci lu baree baree baree baree bare ndax ñoom dañ koy contextualiser lu dëppoowut ak seen gisiin wala fu jamono toll ak nangam loolu moo tax ngay gis testament yi di bari donc kon lii ñu yor ñun ñoom mënuñ koo jàppee injil waaye injil ba yàlla wàcce woon ci Jésus booba moo tax ñuy wax booba moom danga koo war a gëm dangaa war a gëm ne am na yonente ba tudd Isa wala ñu koy wax Jésus yonente ba tudd Isa nag yàlla wàccee na ci moom benn téere bu ñuy wax injil ak évangile ma xawaa zaburaha daawuda summa xawaa zaburaha bi mu daal di jox téere bu ñuy wax zabuur am na téere bu ñuy wax jox na ko yonent bu ñuy wax daawuda mu des benn kamaxtawaa furqaanaha kamaxtawaa comme ni mu ame furqaanaha alquran kan moo ko am almahmud kañu sant te kooka mooy muhammad sallallahu wa sallam kon yalla jël na téré bu ñuy wax alquran wacce ko ci yonente bu ñuy wax sayidna muhammad kon loolu mooy yi nga wara gëm ci téré yi gëmal ne daal yalla wacce na ci kaw suuf 104 livres yo xam dafa jël 10 yi jox ko yonente bu ñuy wax adama jël 50 jox ko ku ñuy wax isa jël 30 jox ku ñuy wax idrissa jël 10 ibrahim mu daal di des ñeent tawreet mu jox ko Musa injil mu jox ko zabur ko mu jeex noonu la borom distribué kon yonante yi nag jeexa yàlla defal jàmm ak mucc ma habbahum rabbul wara salaamu li feek borom mbindeef yaa ngi leen bëgg xabbahum ma xabbahum li fekk mi ngi leen di bëgg rabbul wara boroom mbindeef yi nga xam ne moom mooy assalaamu mooy kiy jàmmal assalaamu ci turu yàlla yi la bokk li bëgg a wax rek mooy yonent yi yàlla leen yàlla defal xéewal li fekk yàllaa ngi leen di bëgg lool mooy lu éternel rek la bëgg a wax kon ok loolu moo ajoon kon ci euh, lu jëm ci malaayka yi ak téere yi kon yaakaar nañoo dem pause na léegi bii di ñëw kon li ñuy jàng mooy yonent yooyu tënk bi rek mooy nga xam ne malaaka yi dafa am loo war a gëm ci sax li ngay gëm mooy ngoog nga gëm ne ñu am lañ nga gëm ne def Bakar, gëm ne duñ am wa nak duñ tour ndox duñ lek duñ nan moy ndigalul yalla kenn ko ne la ko yàlla digal ci lay sax ko def yalla def leena bind ci air tabal seen borom moy seenug nan sellal giñ koy sellal moy seenug lek mu jeex téere tamit li nga ci gëm moy da ngay fas ci saxol ne yalla mo len wacce lepp lu nek ci ci téré yi rek dëgg la téere yooyu nag mi ngi tollu ci 104 téré yalla dal di jël 10 jox ko Adama 50 jox ko Siisa 30 jox Idrissa 10 jox Ibrahima Tawret jox Musa Injil mu jox ko Isa Zabur mu jox ko daoud mu jox ko sayyidna Muhammad alayhi